jaajëf sama gars yi salaam jàmm kum mbedd niggas baa ngi nuyoo léemaa ko mëcc wala waa dégg ko fay ma it's your boy ji ji jiri terre et que boy grand F monsieur Takke mëne fu ne maa ngi leen di bégg bu baax a baax di leen ziar vous êtes dans votre émission préférée Galsen Sama Game sur Equivox TV tey nag ñoo ngi dalal euh, mun naa ni benn king la wala benn grand nga xamante ni bi hip hop seen di démarrer fii la ko fekk euh, muy grand Matador ñu bëri naan ko mbay mais ñun ñi si game bi Matador lan xam. Euh, moom lan fas yéene waxtaanal tuuti mu résumé ñu ci hip hop bi naka la duggee Sénégal dinañ waxtaan ci hip hop nu mu duggee Sénégal dinañ ñëw ci actualité dinañ waxtaan tamit ci tey euh, hip hop bu démb beeg tey bi mais avant tout dama koy jox mu nuyoo ñu soogay dugg ci biir waxtaan bi Grand Mbaye ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi fay waaw di nuyu ñi di seetaan émission bi yëpp. Mhm. Euh, di la jaajëfal aussi ci invitation bi nii. Mhm. vraiment kontaan si trop de pour échanger ak yéen. parce que mhm. tamit voilà suñu rôle aussi. ama leeral gars yi souvent wax leen wala expliquer leen ñu gën a comprendre lan mooy hip ak lan mhm. culture dëgg la comme ni nga ko waxee grand gën a leeral booy lii hip hop loolu sax bokk na ci lu ñu fi indi mhm. euh, dañ bëggoon rek grand ñu ñëw ci ci hip bi naka la duggee Sénégal waaw euh, c' dans les années quatre vingt. Mhm. Euh, ñun bokk on était jeune mais hip hop mi ngi mi ngi liñ ci njëkk a xam ci di parce que hip hop culture la. Mhm. boo xam ni dafa am ay éléments quatre mën nañu wax quatre éléments de base yoo xam ne moom moo ko constitué. Mhm. muy euh, break dancing mooy dance bi. muy DJing muy graffiti ak MCing mooy rap bi musique bi wàllu musique bi quoi. li ñu njëkk a jot ci hip hop Sénégal. fecc la danse bi. danse bi donc dans les années quatre vingt. ak euh, vraiment euh, benn film bu ñu doon wax euh, Breakstreet mhm. donc ci la ñu commencé di in di commencé di fecc break dance si la ñu mhm. commencé di xam lan mooy culture hip hop mhm. donc ci biir loolu ni muy évoluer la ñu la ñu adopté musique bi musique hip hop mu nekk rap mooy musique bi nga xam ne moom la ñuy retrouver ci biir culture hip hop donc c'est dans les années quatre-vingt vraiment la dugg si ñu xamoon ko ñu ko doon suivre ci benn télé. Mhm. boo xam moo fi nekkoon télé nationale. Mhm. ak Moïse Ambroise Gomis muy génération quatre vingt des fois mu teg benn vidéo xam nga bu am tuuti ra. grande xam nga affaire yooyu. Mhm. mais à travers les films la ñu gën a xamee hip hop. mu mel ni euh, Break Street bi ma wax noonu ay Beat Street. si la ñu xamee culture yëpp culture bi. Mhm. léegi euh, année quatre quatre vingt huit euh, mën na la dugg Sénégal. waaye euh, quatre vingt quatre vingt quatre vingt quatre la. waaw rek film yooyu ñëw quatre vingt quatre jëm quatre vingt huit la. Mhm. vraiment culture bi dugg di développé. Mhm. quatre vingt huit dafa tasanteeg année blanche. a commencé si la amee doole mais kon quatre vingt fekk rab dugg si. fekk bi moo dugg si. Ah, mais rab mi ngi vraiment ay année quatre vingt huit la commencé. à jël les devant nag mm. comme ñi nga xamante ni seetaan. seetaan comme sama genre yi tamit mm-hmm. nouvelle génération bi nga xam ne fekkee wuñu démb. Mm-hmm. mun nañ xam ban grand mun nañ ni moo njëkk a rap Sénégal. ah loolu dina xaw a compliqué mm-hmm. mais man li ma xam daal mooy ni. Mbacke Dioum. dañ koy cité. dañuy cité ay ay ay MC mais am na ku ñu doon wax Donge. tamit benn concours Fëgg Jaay wa doon Fëgg Jaay rap. Euh, Milisan ak Charles Foster ñoo ko organisé woon Sorano. boobu tamit ñu gisoon ay ay Donge ñooñu dañ nekkoon ay danseurs après di mhm. rabaale di rabaale donc mhm. mais ci li ñu gën a xam Mbacké Dioum bokk na ci ki moo jénn sama yaay nag ma baal mu am mhm. ci kiw rab lu ñu njëkk a jénn mu évoluer MC moo njëkk a jénne produit produit mais ñun avant MC amoon gaa doon rab gaa yaa PBS bu nekk nekkoon ci compilation mais du woon produit am compilation bu institut euh, centre culturel français organisé defar euh, produit roon la ñoom ñu am ci benn morceau bu ñuy wax mooy duñu PS duñu PDS ñun ñooy PBS uh-huh. donc ci compilation lañ déconnecté mais bu dee bu njëkk a jéene produit uh-huh. dañuy wax Mbacke Diouf Mbacke Diouf kii kii MC Lida euh, MC Lida uh-huh. donc euh, a def vidéo euh, pas vidéo mais RTS la demoon def fa benn kii boo xam ne après gars yi dañ ko doon teg lu bëri quoi donc ci biir kii bi mu defoon RTS mi ngi reprendre texte Euh, ci biir en anglais parce que woy bi wolof la mais hmm. texte anglais bi muy reprendre foofu ah. texte Grand Master Flash la ah, mu kii bi Street the King of the Beat benn si film bi la nekkoon donc ci la ñu xamee ñun rap Grand Master Flash mhm. African Bambata la mhm. Zulu Nation ñoo oo oh, ci biir film boobu lañ dañu nekk ci biir film bi suy mhm. ci loolu la ñu xamee vraiment culture bi parce que si film bi amoon na danse amoon na graffiti amoon na ñuy rap après on s'est dit mais lii nice quoi après si lañ commencé di màggaale moom group yi groupe yi njëkk yi doon doon dégg ay diw poos yi diw poos boobu lu andi poos yi avant c'est c'est c'était des crew ay group la woon euh, wutee na ak tey waaw tey ay MC ngay am ay benn artiste ngay am mhm. mais avant ay yav gis benn nit buy rap c'était compliqué mhm. parce que ay group PBS ni mu meloon gis nga ko daara ji mhm. P Froiss PMG ñëpp ay groupe la ñu woon suñu flavor lépp ay crew la woon moo tax mu doon am ay poos yi mooy voilà euh, genre cartel gang donc wala crew donc dafa bëri woon groupe yëpp da doon am crew euh, wala poos yi wala gang xam nga parce que ya doonu woon nekk benn artiste ak buy dem mais vraiment da doon am ñu bëri ñuy. ñuy ñu ñu ci ñuy demandoo ñuy demandoo moom ko mm-hmm. déjà day nekk trois wala quatre rappeurs. Mm-hmm. plus maintenant ñi euh, staff beeg. loolu donc mm-hmm. toujours da doon am crew wala gang et puis. quartier yi mhm. dañu impliqué woon mhm. donc du comme bu may joxe exemple BM ji c' était pas seulement les rappeurs euh, quartier bi yëpp jeunes nekk ci quartier bi dañ doon bokk ci euh, mm-hmm. ci ci groupe bi mm-hmm. donc moo tax ñu doon wax crew affaire yi mm-hmm. mais ak évolution musique bi ak nu muy évoluer tey rek loolu rek jàngat am na fi parce que avant gars yi ils pouvaient se partager dañ doon bokk tey individualisme dafa dugg donc économie koom day mm-hmm. dugg mm-hmm. yu bëri day dugg quoi donc ça fait la différence mm-hmm. donc euh, moo tax avant aussi je peut dire que moo taxoon mu am doole dëgg la parce que groupe bu nekk daa meloon ni équipe waaw équipe bu quartier quoi ba pare sa saayit di la bi voilà temps yooyu tamit danga doon dégg euh, ay respect ay représente waaw xam nga ñu lay laaj philosophie concept mais léegi j'ai remarqué que <laughs> mën ngaa demee bëri woon si boo si cuq parce que gars yi dañ ñenn ñi def nañ ba terminal Mhm. ñenn ñi dem ba université. Mhm. ñoo ñoo doon def rap bi. dëgg la tey dafa raar sax ci au niveau des émissions nga dem ñu laaj la lan mooy sa concept. <laughs> waaw waaw wala lan mooy sa <laughs> philosophie. gars léegi concept mi nga am tey léegi kenn mais concept am na life. boo boo nee aw ma concept sax concept la. dëgg la life lépp ci concept lay tëdd. Mhm. nit ñi nangu ko wala ñu bañ ko. dëgg la gis nga booy li ñuy def nii sax. Mhm. am na ko mën nañ ko conceptualiser. dugal ko ci benn concept yi lii la. Mhm. parce que concept bi day mën nekk ay philosophie booy. wala benn philosophie booy défendre. wala wala benn wala ay opinion yooy défendre. wala mais même économiquement bu dee ni yow da nga ñëw pour se faire de l' argent. business ngay def sax day am concept bu koy gunge. la c'est dommage que gars yi bëgg ni mm. concept amatul. Ah, mais nit <laughs> kuy dox sans concept amul. dëgg la dëgg la. même boo jàppee ne yow amoo concept da ngay dem nii rek sax loolu. Mm. concept loolu concept ah, xëy na duñ ko duñ ko mën a définir. duñ ko mën a définir voilà c'est loolu rek mm. ay jàngat la yu ñu mën a def quoi. et avant c'était ça. maa ngi ci démb ba tey dañ daan gis crew yi bu daan am ñett artiste kenn ki da daan xuural baat hmm, kenn ki di way <laughs> kenn ki di comme ni ko gars yi waxee mooy loolu nu yéen ñëpp nu ngeen ko déggoowee noonu non non déggoo ñu ko woon euh, peut-être euh, période boobu mm-hmm. euh, hip hop bi mm-hmm. moo moo bindoo woon noonu et mm-hmm. puis y avait à côté lu ñuy wax rag raga raga meuf raga meuf moo amoon ñuy tossé ah donc et puis groupe yi gën a njëkk a fës. Mhm. tamit ñoom ñoo tax hip hop bi ñu gën a xam muy loolu. Mhm. muy PBS muy Daara ji mooy groupe yi njëkk a fës. ak mhm. Pif Roy peut-être. mën nañu wax. waaw ñooñu ñuy groupe yi njëkk a fës euh, Sénégal. ci groupe de rap. mais Positive Black Soul. dañ doon def. rab raga soul seen style waaw donc boo demee daara ji tamit rab raga soul mhm. parce que faada mooy soul laaji maan doon def raga ndongo di rab dëgg la donc ñooñu ñoo joxe le ton mhm. après voilà y avait énormément de groupes parce que ça mhm. marché ñëpp di ko def dafa mel ni tey rek nga ni Jolof beat booy ñëpp dañuy def même chose parce que solo wala voilà benn carrière solo voilà ñëpp dañuy donc loolu moo ko indi mais à côté nous on faisait on a fait commencer après ak li ñu li ñu découvrir hip hop on s'est vraiment mhm. orienté parce que au début tu te cherchais en te da nga doon def voilà mhm. dëgg la mais après tu on était obligé mhm. de am benn style bu ñuy représenter donc loolu moo indi peut-être euh, rapajo bi ñuy ñëw euh, indi clash parce que dañuy di lii du rap rap raga sol variété la dëgg la donc hip hop daa musique rap la rap nii lay mel dëgg la lii la war a wax. Mhm. donc c' était juste ça. du woon mhm. clash bu soxor quoi. mais c' était juste pour remettre les pendules à l'heure xam mhm. donc euh, loolu moo njëkk Sénégal ah, ñu nangu ko. tey ba tey tamit am na fi ñuy def loolu. am na kuréel yu koy def na koy def. Euh, que am na ñu doon def rap. dëgg la euh, vers les années 2000. ak mhm. Rapadio 98. Mhm. bi Rapadio ñëwee affaire yi dafa changé. après il y avait plus de groupes de rap. waaw que dañ ñuy def rap raga soul. dëgg la mais n'empêche que ñi bëgg a def soul. Mhm. dañu war a def soul ñu war a def raga dañu war a def raga ñi war a def rap rap. et là moi quand j'ai besoin de ku woy sama morceau damay woo ji benn Fada Freddy wala Dëggiti wala ku mën a woy. soo xam ne sool lay def nga def ak moom featuring. waaw. Mm-hmm. c'est important featuring yi souvent loolu moo koy indi. Euh, te dafa manqué. Euh, voilà dafa mm-hmm. manqué ay vrai featuring. waaw euh, du franchement souvent du. ñu bokk univers. waaw featuring yi en général yuy am featuring ak benn mbalaxmaan. yi am fii Sénégal dañuy ñëw fekk benn grand matador yi si joo benn artiste hmm. ñëw xam nga hmm. seet si Omar. Hmm. fekk fa matador ne eh, grand lii de fil naa teg ci dara. nan la featuring yu bëri en général noonu lay amee Sénégal nekkul loo xam ne damay toog fixé artiste bi ne kii kat laa soxla si lii. parce que son bi ma soxla voix bi bon am dañ koy def ba léegi nag quand Euh, c'est yooyu yëpp ci ci la bokk quoi mm-hmm. la bokk mën nañu wax ni c'est pas méchant mm-hmm. mais avant il y avait des crews mm-hmm. euh, et crews yi tamit moo doon touche boobu noonu moo doon def peut-être li tax ñu doon wax rab ga rab rap galsen rap raga sol boobu nga xam ni vraiment dañuy am trois kii yëpp si benn musique et ça franchement les gars ils fase faisaient très bien même bu fekkee ni ñun du loolu lañ doon def mais ñi ko doon def tamit ils le faisaient très bien et ça a permis euh, que hip hop Galsen tamit mu dem fu sori. Mhm. dëgg la mu egg jamono yi. dëgg la jamono boobu waaw xam nga mhm. voilà et aujourd'hui euh, dañuy xam ni tamit euh, voilà. ba mhm. léegi am na ñu ngi téye ah, la cap parce que Awadi il est dans ça et dëggati. dernièrement am na produit bu ñu daara ji aussi la même chose on voit qu'il continue de représenter ak même style bi. dëgg la crew day am style day am concept am philosophie am ñoom seen style musique ak seen philosophie ba léegi trahir ñu ko ñu ngi ci. dëgg la c'est important. dañuy ñëw si 44 BMG. ban année nga ko ngeen ko formé ak kan si kan ci nekkoon. Euh, c'est dans comme ni nga waxee 88 euh, jëm 90 yooyu la ñu. commencé mais dafa nekk crew boo xamante ni. gaa doon sénégalais dañ ko yéex a xam. waaw pour pourtant yàgg nañ rap yàgg nañ rap waaye. parce que 98 lañ génne album. mais ah. on était là depuis le début. Euh, et c'était pas évident. Mm-hmm. comme ñu côté banlieue lañ nekkoon. Mm-hmm. Euh, instant yi gars yi di jënd seen produit mhm. c' était pour nous metti si yéen mhm. parce que déjà les producteurs la majeure partie des gens ils pensaient que ñun ay bandi la mhm. donc benn producteur ñemewuñu woon dëgg la parce que caaro yi la ñu kese biim ji bu caaro yi bi moo doo indi lool mais aussi voilà ñun tamit on n'acceptait pas de fait bëgguñu woon a jénne du n'importe quoi quoi sérieusement on ne faisait pas de la musique pour jénne nañu comme ñëpp am nañ vidéo parce que mhm. si je me rappelle bien euh, bi ñu gagné concours institut français je ne sais plus l'année mhm. mais euh, am na benn cigarette bu ko sponsorisé woon concours bi mhm. ki gagné prix bi vidéo la waroon am ñu gagné ko ñu war ñu produire vidéo instant yooyu vidéo ñu ko am du ñaar du ñett on ne voulait pas sortir bu jénnewuñu vidéo ba léegi parce mhm. on les a dit que ne mënuñu jénne vidéo te amuñu produit dëgg la dëgg donc te produit mënuñu jël ay face B mhm. face B boobu tey mooy euh, biid yi gars yi di télécharger sur internet waaw boobu peut-être moo nekkoon face B parce que mhm. du nekk sa propre musique waaw donc nous à l'époque on ne voulait pas jénne vidéo boo xam ne du ñun ñoom moom musique parce que morceau yi ñu amoon yëpp doon ko jouer ci ay face B lañ ko doon teg donc ñu ni leen da ngeen ñuy jox xaalis bi ñun ñu dem def suñu produit. Mhm. parce que loolu mooy priorité. Mhm. si ñun. mais jamono est-ce que yomboon na. non yombul woon pour nga sa bitu bopp. Euh, no yombul woon mais mhm. voilà euh, nous on on on s'était toujours dit. suñu premier suñu album bu ñu koy génnee. ak suñu propre musique lañ koy génnee du ñu jël musique jàmbur du ci génne album. donc lu ñu gëmoon la ça nous a vraiment euh, traîné nañ lu bëri. benn instant yàlla indil ñu xéewal benn produit koo xam ne bëggoon na def suñu produit. on lui a dit ni il faut que ñu comprendre. Mhm. lan mooy parce que dañuy rap di bind ay texte mais mhm. musique la. Mhm. donc bu lu ñuy jénne daa war a sérieux il faut ñu xaaraat pour gën a comprendre comment ça fonctionne. après bon mënuñu ok. donc kooku moo mujjee ñëw fekkaat ñu ñuy def production mu egg la ko muy jigo que je salue. yi euh, passage benn amul benn bit download non. yëpp produit yoo xamante ni dañ ko composé et c' était à l' parce que pour nga gis programmateur c' compliqué mm-hmm. y un grand boo xam ni waa Peace and Peace ñoom Nabil mm-hmm. ñoom xoo mu dëkk Mbour bu ñuy wax mm-hmm. Fonce Ndour waaw donc Fonce moom amoon boîte à rythme loo xam ni dañ ciy tëggee musique donc ñu dem Mbour on a presque fait un mois à Mbour. mu job pour mu tëgg moom mu tëggal ñu biit yoo xam ne vraiment ni ñu ko sentiré ko mais boobu la woon boo xafee bu non non prise yi moom boo bul sonn. après bu jàppul taxi bi boo duggee. non boo duggee am amul ay comme ni. mais grand comme léegi hip hop neex na de. non léegi c'est passé na neex et puis ci condition yow doy waar nga koy kiwee da ngay taqale yu taqale yu metti fay mm. et puis boo duggee studio voilà ba léegi nag peut-être loolu moo ñu jàpp ah, mënuma mënoo dugg sax si cabine xalaatuñu ko sans pour autant texte yi nekk sa bopp quoi uh-huh. euh, c'est impensable loolu xalaat mënu mësuñu ko mën a xalaat sax voilà pour dire que ni de évoluer ak la mm-hmm. ak technologie mais avant ñuy wax sampleur boîte à rythme lañ joobee suñu premier album xam nga boîte à rythme bon mun xëy na gars yi nañ ko xam nañ ko quoi ñi anciens yi xam nañ lan la quoi <laughs> xam nga comme sampleur la mais du sampleur mm-hmm. sampleur leneen la mm-hmm. dafa ñëw après boîte à rythme mm. léegi dañuy dugg ci sa carrière grand gis nañ mm. Matador jékki-jékki saay di def euh, slam loo xamante ni mën na ne sénégalais yu bëri xamuñu ko woon mm. bi nga koy soogay def ñi nga xam ne mm. xamuñu salaam ñi ngi doon wax grand bi lu mu bëgg a créer nii mooy mm. lan waaw salaam yaa fi dugal waaw waaw créé wu ma eh, ko ah, nag yow yow lan gis artiste sénégalais bu njëkk def salaam waaw parce que euh, Dieu a fait que après 2000 bi ñu génnee album boobu après politicien 2002 mm-hmm. on a eu la chance de collaborer ak ay artistes belges ñu ñëw fi def un mois ñun ñu dem Belgique mm-hmm. loolu bañ demee ba ñu gisee ñoom seen hip mhm. ni mu organisé wo mhm. moo indi africulture. moo indi slam boobu ngay wax parce que foofu laa ñu découvrir slam on mhm. était en tournée. ñoom ñuy organiser festival slam à l' époque. ñu bon comme vous est ce que doo leen participer ci festival bon on ne savait pas ñu bon xamuñu ñu ne ma ñu ñu ne c'est pas trop compliqué mën nañ leen a jox ay vidéo ngeen seetaan ñu jox ñu. Mhm. vidéo Saul Williams. Mhm. ñu seetaan film bi après on s'est dit ak ah, man oh, mais ça on sait faire ça avec nos textes quoi. Mhm. donc si lañ commencé di chaque fois gars yi du ñu programmer après ay ay ay yu am foofu. dégg donc bu ñu ñëwee Sénégal kenn xamul salaam quoi. et je me rappelle benn télé bu doon def euh, émission star en ligne tëkkatoo de Salam. ñu gars yi xam nga c'était waaw <laughs> beneen beneen xeetu. <laughs> musique <laughs> xam ne jege na hip hop quoi. Euh. donc euh, si laa ni voilà commencé chaque fois ñu amee spectacle ma def benn texte la. wala mhm. kii ba bi may jënne albumu xippil xool nga xam ni. c'était vraiment album Salam. sonn booy. nekk ci biir ak yeneen ak yeneen boo xam ne kër yëpp la dugg. ak dem leen ñu dem mhm. yooyu yëpp voilà voilà. Mhm. donc euh, vraiment pour sénégalais pour gars yi découvrir ko. Mhm. parce que là ñun ñu ngi doon tasanteeg ay slameurs yu mag ñoo xam ne slam kese la ñuy def et tout. mais ñun en tant que rappeur on s'est dit lii war nañ ko mën a nandal waa Jolof ko et aujourd'hui on ne regrette pas bu ñu demee ba am euh, euh, international internationale bu slam bi nga xam ni. Omar a ñu jël. booy dem ba jël prix Afrique ci slam parce que slam bi Sénégal sax peut-être mhm. mi ngi développé bu baax mhm. parce que voilà maa ngi suivre quoi mhm. et aujourd'hui fi mu toll donc fierté la quoi dëgg la bu ñu amee ñuy dem bay remporter ay prix slam di dem di représenter Sénégal sur la scène internationale vraiment Euh, dañ la loolu waaw dañ leen ciy félicité bu baax a mm-hmm. baax di félicité Omar benn Khattab mm-hmm. Keita euh, mais grand ñu toog benn temps ñu ne naan Matador bàyyi na rab léegi mi ngi si flow di concentré ci flow organisation flow beeg yooyu noonu moom ak gars yi ñu jeg-jeg saay gis nga génnee beneen album mm-hmm. Rewgal Nation mu am benn sound boo xamante ni sénégalais yi tey dañ ko war a déglu euh, muy Sénégal Sénégal sound bi may ñëw maa ngi koy déglu si yoon bi ma ni non grand yu rap nañ lépp te pourtant lii album bi yaagul sax xam nga sound bi tombé actualité tey jii ku ko déglu dina xam sound bu may wax ni nii mm-hmm. Rougane seen ku am album bi mm-hmm. déglul son Sénégal nga def sampling Laye bu lamin Gueye bi waaw mu nekk sound bu nice yee ma job si ak euh, benn euh, producteur mm. artiste producteur bu nekk instant yi mi ngi itali il a mm-hmm. signé ak Sony bu ñuy wax Laye sample bi laa ko yóbbul. Mhm. mu def produit bi sa fait voilà Réugal c' était en deux mille ça fait maintenant quatre ou cinq ans. waaw donc euh, est vrai que euh, euh gars yi dañu comprendre rek. Euh, mhm. quand ni ñu ñëwee ak noonu la ñëwee ak projet Africulture. Mhm. donc il fallait rester. se concentrer parce que tamit affaire la boo xam ni. li mu mën a apporter la culture urbaine ñoo parce que avant ñuy wax sax. Africulture urbaine. du slam rek la ñu indi. dëgg la. on a amené on a on a été les premiers à parler de culture urbaine au Sénégal. waaw ak en créant l'africulture urbaine moom wax dëgg yàlla waaw tur boobu moom. xam nga lu indi loolu. Mhm. parce que avant les gars dañ doon essayer ay mhm. ay crew. Mhm. Euh, parce que bu ñuy wax rabu démb tamit il faut ñu wax yenn problème yi nga xam ne booy waruñu commettre erreur yooyu. donc chaque fois. benn connexion wala benn coalition wala benn affaire bu gars yi doon jéem a def pour nekk ensemble. pour mhm. tax affaire bi gën a am doole. Mhm. da ngay gis ni ay détails yu ñàkk fay da ko doon tas parce que yow aat koor nga man damay def suul. mais warul la tax ñu mën a bañ a liggéey. dëgg la donc vu euh, différence yu ndaw yooyu. Mhm. ak vraiment ku nekk bëgg a taxaw ci li ngay def rek li may def moo baax leneen li baaxul. alors que il fallait ñu dépasser loolu. dëgg la et on avait trouvé que ni. pour ñu dajale ñëpp. Mhm. loo xam ne ñëpp dañ ciy gis seen bopp. Mhm. culture urbaine da doon régler problème bi yëpp. dëgg la dëgg la parce que culture urbaine salaam day bokk. ci biir man rappeur la mhm. di def salaam mais salaam bokkul ci culture hip hop. loolu mooy dëgg. dëgg la mais slam dafa bokk ci culture. urbaine dëgg la. comme tey style boo musique yi ñi am nii tey. booy di ko def. waaw wolof biit beeg yooyu noonu hmm. dafa bokk ci culture urbaine dëgg la. parce que loolu lay demee. te day hmm. yeneen day ñëwaat. Mm-hmm. yeneen ak yeneen day ñëw. looloo tax culture urbaine looloo tax. dafay dafay dafay mën a ëmb loolu day yaatal mën a permettre nit ñi mm-hmm. ñu nekk à l'aise et puis am liberté wu def lañ li bëgg a def. waaw parce que bu dee hip hop la daa am fu ñu lay xaw a mu lay xaw a tënk. waaw dal lay tënk waaw mais bu ñu nee culture urbaine rek métissage. waaw règlement bi da ciy gis sax boppam hip hop bu jaxasoog reggae mm-hmm. hip mélangé wu ak mbalax. hip hop bu mélangé wu leneen. day mën a bokk ci biir. et puis nit ñi de ku nekk day mën a def li muy def te kenn du gaañ keneen. dëgg la les meilleurs les nga xam ni niveau professionnel bi dafa kawe. Uh-huh. day tax yow sa niveau yéeg day yéeg. Uh-huh. mais c'est dommage que. Mm-hmm. tey euh, quand on am amené ay Onyx yenn groupe yi fii. mais c'est pour que sénégalais xam. Mm-hmm. ñoom fan la ñu toll nga mën a natt sa bopp yow li ngay def ak ñii li ñuy def. dëgg la parce que art l'artiste mënoo ko juger. Mm-hmm. lu dul prestation yi muy def bu nekkee sur scène ce qu'elle dëgg la donc ñooñu bu ñu ñëwee. Sénégal. c'est day may hip hop Galsen mu. waaw beneen niveau. beneen niveau et puis mhm. comme ñoom ñoo nekk ci niveau bi nga xam ni vraiment euh, euh, mondialement reconnu que ni. Mhm. ñii am nañu reconnaissance àdduna bi yëpp que ni li ñuy def. ci jaar jaar na yoon. Mhm. donc bu ñu ñëwee si sa benn scène. Sénégal ça veut dire que ni scène boobu c'est international déjà et puis la hip hop Galsen. war nañu mën a wax ni kon ñi am nañ hip hop boo xam ne am na niveau international. dëgg la bu ñuy jéeg euh, ay. ay ay ay ay ay yenn euh, mi ngi mel ni équipe nationale Sénégal. rek ah. di. wala di football ak suñu Afrique mais bu demee coupe du monde. Ah. am dimension. boo xamante ni mooy loolu dëgg la. après bu taseeg sax équipe africaine da ngay gis ni. différence ëpp niveau ah, waaw dëgg la. c'est la même chose. Mm-hmm. Mm-hmm. donc hip hop dafa judd pour xeex injustice. Mm-hmm. inégalité ak euh, yu xeet yu mel noonu. donc euh, lu mu neex neex neex. Mhm. quand on se dit hip-hopeur. Mhm. nañu jox toujours hip-hop wàllam. dëgg la d'autant plus que ñu nekk ci réew moo xam ni. Mhm. ba léegi. yooyu daf fi sooxe. démocratie bi demeewul noonu. daf fi sooxe ba léegi. dëgg la injustice bi dafa bari ba léegi. Euh, corruption bari na fi ba léegi. yeneen ak yeneen ñi ngi fi ba léegi. te luñ mën a wax am na fi quoi. am na fi quoi donc. Euh, bu ñu nangu mukk euh, euh, business bi. Mhm. nga xam ne xaalis la. Mhm. mu yóbbu ñu ba ñu dévier dé ba mu. dem ba dévier ñu. Mhm. ba li ñu war a wax duñ ko wax. parce que ñun tey jeune génération bi mënuñu ni. bàyyi fekk ñu in bàyyi luñu leen wala indi luñu leen fekk ñu fii. hip hop bu engagé. dëgg la hip hop bu conscient. hip hop bu boo xam ni bu social. duñ ko wax parce que loolu lañ dañ ko dañ cee mës a veillé. dëgg la ñoom nañu fexe ba yeneen génération yi di ñëw tamit. Mhm. ñoom ñu bàyyi leen loo xam ni. Mhm. Mhm. personnellement dinañ ci mën a defaru. parce que hip hop day defar nit d'abord. day defar société. dëgg la bu la defaree en tant que nit. xalaatal defar si sa société aussi. vraiment mooy message bi ma leen wax parce que euh, suba tamit ñeneen liñ fiy fekk. dëgg la ñoom day dañ ci am part de. responsabilité dëgg la yéen bu ngeen ko yàqoon bu ngeen ñëwee da ngeen di fekk booy itam dañuy ñëw rajo ko am na solo mm, respect ci grand kontaan nañ ci émission bu baax a baax. yaa naa li fi leeral moom macha allah. waaw mais maa gën a kontaan c'est mm-hmm. c'est toujours un plaisir. Mm-hmm. di partager ak nit ñi. Mm-hmm. ñun li ñu dund ci hip hop souvent. yaay dañ ni doo leen dem di wax mais peut-être am na lu ñu su yu ñuy yenn mm-hmm. ak chantier yu ñuy sumb yoo xam ni mm-hmm. buñ ko deful mm-hmm. kenn du ko def suñu place dëgg la donc on trouve que ni loolu moo ëpp solo ñuy wër ci ay rajo ki télé di wax dëgg la dëgg la parce que loolu kenn du ko def à notre place te n'importe quel jeune africain ou Séné euh, sénégalais ou africain dañu war a conscient que ni kenn du ñëw di ñu liggéeyal suñu Afrique dëgg la commencé kon nag si suñu ay réew. Mhm. ku ci nekk tamit ci li nga maîtriser ñun mhm. la culture lii la ñu xam. Mhm. ci li ñu maîtriser on fera de notre mieux ba nga xam ni. dootul nekk passe-temps. wala da nga koy def juste par amour wala euh, plaisir. nii rek mais day nekk métier. dëgg la dëgg la. ci chantier yooyu lañ nekk parce que tamit ñun fekk ñu fi loolu. mais amuñu droit bàyyi fi vide boobu tamit muy continuer di law. am na solo waaw respect di ko bëggee bu baax a baax kookoy grand matador yaakaar naa li mu fi wax lépp jàngat la ñun ñi man mii sax tey doon ko posé question mooy doon jàng ci grand bi te incha allah émission bi fu ma toll dama koy seetaan ndax li mu ci wax am na solo ñu ngi koy bëggee bu baax baax di leen jox rendez-vous beneen yoon jili der la woon